équipe national bu Sénégal mayo yu weex yi lay footballé ñetti match yooyee yépp ndogal loole nag waa FIFA ñoo ko jël dañu ko tirage Sénégal mayo yu weex yi lay footballé ci ñetti match yi nga xam ne dina ko njëkk amal ci coupe du monde ba loolee officiel na kon tey jii bu ñuy jàkkaarloo ak Pays-Bas mayo yu weex yi la ñuy sol. ñoo ngi ci match bi war a dox ci diggante pays ba ak Sénégal ba léegi bu ñu sukkandikoo ci e bie yi nga xam ne moo lay may nga dugg ca stade boobee jamono ji bie ya jeex na tàkk kon stade boobe ñuy footballé match bi foo sànni mbàttu dina tag ndax bie ya jeex na tàkk bu ñu sukkandikoo ci eMédia stade ba nag mi ngi tudd stadium Al Toumama noonee la stade bi tudd jamono ji bii yi jeex na tàkk waaye nañu ñaan mu neex lool am jàmm Sénégal am ndam ca match boobee loolee la ñu bëgg ñun sénégalais yépp te moom la ñuy ñaan ñu jugee ci match boobu war a dox ci diggante Sénégal ak pays ba dem ca waa Barcelone bu ñu sukkandikoo ci Mundo Deportivo ñaar ñii moom noppi nañu ngir wàññi seeni salaire jàppale club boobee di Barcelone muy Frenkie de Jong ak Marc André Ter Deportivo nee na jàpp na ni ñaar ñooñee bu Barcelone waxtaanee ak ñoom dinañu wàññi seen salaire ngir jàppale club boobee di Barcelone xibaar boobu nag de portivo moo ko xamle. ñu jugee ci waa Barcelone dem ca waa Real de Madrid bu ñu sukkandikoo ci sport doomu Portugal bi di Rafael Leao nekk ca AC milla waa Real de Madrid ñoo ngi koy bàyyi xel waa Real li ñu jàpp moo di. kii mën naa wuutu Karim Benzema foofee ci Real de Madrid li ñu bëgg moo di bu saison bi jeexee ñu yegg ci weeru juin mercato bu mag bi ubbi ñu déem a dem ca AC Milan indi ko mu jàppale Karim Moustapha Benzema nga xam ne su fa nekkul moom Benzema doomu Portugal bii di Rafael Leao mën na ko wuutu doxal xibaar boobu sport moo ko xam xamle. ñu jugee ci Rafael Leao waaye du ñu génn gum Real de Madrid du ñu bàyyee gum tamit doomu Portugal yi. Cristiano Ronaldo Portugal la dëkk te ci moom la ñu jëm bu ñu sukkandikoo ci esport jege ñaale ñaaley Cristiano Ronaldo ak agent wam woo nañu waa Real de Madrid laaj leen ne leen Cristiano Ronaldo est-ce que bu ñu yeggee ci weeru janvier mercato bi ubbi ndax du ngeen ko xaatimal contrat wu juróom benn weer mu football ko ci Real de Madrid bu saison bi jeexee ñu téqali ko waaye esport nee na waa Real de Madrid dañoo gantal bëggu bëggu ñi nga xam ne ñoo jege Cristiano Ronaldo. Real nee nañu Cristiano Ronaldo jaaroon na fi jeex na jamono ji noppeeguñu ngir Cristiano Ronaldo dellu si waat ci club bi ngir football loolu la waa Real de Madrid tontu jege ñaaley Cristiano Ronaldo yi bu ñu sukkandikoo ci sport ñu jógee ci waa Real de Madrid ak Cristiano Ronaldo dem ca waa Paris bu ñu sukkandikoo ci talk sport président wu Paris bi di Nasser El Khelaifi moom dafa séq waxtaan ak waa talki sport ñu laaj ko ba yegg ci ci club boobee ne ko yow sa xel ngi ci jaay club bi mu ne jaay club bi de nekkul sama xel waaye nag bu fekkee as pàcc la loole moom noppi naa ngir am pàcc boo xam ne dinaa ko jaay ci club bi képp koo xam ne am nga xaalis ñëw ñu toog waxtaan su fekkee da ngaa bëgg as pàcc ci club bi loole mën na nekk dañuy waxtaan rek bu ñu juboo ma jaay la ci as waaye club bi yépp moom noppeeguma jamono jii ngir jaay ko président wu Paris bi di Nasser El Khelaïfi moo xamle kàddu yooyu dénk sport ñu jugee ci waa Paris ak seenu président dem ca waa Marseille bu ñu sukkandikoo ci Gazzetta dello Sport waa Marseille ba léegi ñoo ngi bàyyi xel doomu Ukraine bii di Malinovski nekk ca Atalanta Bergame Marseille li ñu bëgg moo di jënd ko yóbbu ko foofee mu doxal waaye club ba mu nekk di Atalanta Bergame nee nañu ku ko bëgg 15 millions ba 18 millions d'euros loolee la ñu bëgg ci doomu Ukraine bi waaye waa Atalanta Bergame tëju ñu buntu yi yëpp li ñu xamal waa Marseille moo di su ngeen ko bëggee indi leen 18 wala 15 millions d'euros loole su ngeen ko amul nag. xamin harit la ñu bëgg ngeen jox ñu ko ñu jox leen Malinovski maanaam ñu weccoo xamin harit mi nga xam ne doomu Maroc la Maroc sax woo woon nañu ko ngir mu dem ca coupe du monde ba waaye keroog bi Marseille di jàkkaarloo ak Monaco ci la am ligament loolu moo tax demul ca kub di monde ba waa Atalanta Bergame